salaamaaleykum Sénégal fépp waay nekk di bàyyi xel Sapin TV Sénégal ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar fu waaye nekk rek ñoo ngi lay bëggee fii ci scène bii di Sapin TV Sénégal di jàlle suñuy live yi am solo te ñu gis loo xamante si moom naqare na torop muy ñaaxarañ loo ñaaxarañ loo bu fekkee bës bi ngay wut dafa doy doyut bu fekkee da bëgg lu gën a ëpp loolu nga wax ko nit ñi yow heure bi mi lay gis rek say awra moom ngay wan sénégalais yi wala yow affaire yi moom dafa sénégalais dañ koo miin wala miinuñu ko ba tax yow benn ñaar ñett rek nga génne ko wala yow da bëgg a tiital nit ñi wala nu mu demee noonu wala ngaa yor lu kenn yurut ba fu ne benn ñaar ñett rek ñaaxanañ loo nga génne say awra won ko sénégalais wala yow xanaa xalaatoon da nga ami doom wala xalaatoo ba xam say doom ëllëg mën nañu doon ci réew mi dara xale soppil xalaat soppil xalaat ñaa seew naa wax la ñaaxanañ loo waaw euh, comme ni ko sawaay waxee rek parce que xam nga maanaam lu toll ne instant bi Sénégal ay kilifa nekk fi ay nekk fi amoo leen looy def lu dul di foto sa ay awra di wane say awra ci nit ñëpp di ko gis xale ak mag ñëpp di gis say awra loolu nekk loo xam ne que ñaaxaran loolu nekkul lu rafet quoi parce que boo xalaatee ne ëllëg da ngaa war a fondé famille am ay doom am ay sët am ay dëgg nga def ba nekk mag ñëpp toog ñu génnee ay photo yoo xam ne que instant say awra nga doon wane bi nga nekkee jeune xam ne loolu nekkul loo xam ne que lu rafet la nit ki instant da fexe nga am maanaam euh, répétition bu nice quoi.

gëm sa bopp ñaa. waaw waaw comme ni ko Cheikh naa waxee rek. ñaa yow xaw ma ñoon nga yab yow dama yaakaar amuy mbokk quoi soo amee mbokk wala nga doon nit non yow da ngaa yab nit ñi ñaa xale loo ngaa yab nit ñi tax sax nga maanaam ngay tudd sa bopp ñaa a yab nit ñi. xam nga Sénégal Sénégal li ñu war a dégg dafa bari du question nekk fi lañ fa war a jëlee non ñi nga xam ne que dañuy dañuy def loo xam ne que c'est normal xam nga lu toll nii kii ngay fàttali say di ko wane xam nga ci soo yi ñëpp di ko seetaan loolu sëriñ fa la jëm loolu day yàq loolu day yàq quoi loolu baaxul. te mel na ni Sénégal nag war nañ cee waxaat nekkul ne ñuy wax rek góor jigéen yi donc yi bare nañ fii senegal léegi trop góor jigéen yi góor jigéen yi war nañ cee wax Sénégal léegi kenn xametu góor jigéen loolu nañ ci wax nañ ci wax. loolu loolu noonu moom moo fees Sénégal instant bi dafay fees del rek dama ñaare gis naa ay góor yàlla yoo xam ne xam nga sax sikkim war a def yëfi góor yàlla nekk ci gars yi di wax ay wax yoo xam ne ay nawleeg yu ñàkk fulla waxi góor jigéen xam nga Sénégal instant bii nii dafa jot yaa ngi dégg ñu xeex fii li nga xam ne que yi moom mooy delloo réew ginnaaw muy ay affaire de góor jigéen ay ñi wane seen i bagages yooyu yëpp dafay war a jeex parce que réew bii réewu diine la réewu lislaam ndax ay kilifa yu baax ñu fi dëkk xam waaw il est temps quoi ñu gëm suñu bopp il est temps ñu bàyyi yu bëree baree baree bëri xam waaw waaw ñu leen di nuyu yéen waa Sénégal waa Sappi TV Sénégal partagé lañu suñu vidéo pour mu war mën a wër àdduna bi ñëpp jot ci ñëpp jariñu ci wasalaam.